lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul soxna jaara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 alhamdulilah alqaail fi muxkami tanzilihi inna addiina inda allahi alislaam wa man yabtaxi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaxirati min alxaasirin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf nuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu boroom mooy ko kàttan ak wér ba lépp mu mot ko ni nga ko bëggee kon ci ndigalul sa mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi li fekk jàpp bi te mboolem li ëppoon solo ci kàddu yi wax na ko tënk na lépp tënk na jëm ci nguur gi tënk na li jëm ci bokk yi tënk na li jëm ci taalibe yi kon li ci des rekk mooy jotle tuuti ci ay kàddu yu bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci mboolem taalibe yi ak yoon wi sëriñ bi wax na ne mi ngi sant ñëpp di ko gërëm di leen gërëm ni ko sëriñ Isaaxa Mbakke waxe léegi ci cantam goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu ci barab bu tedd bii di poroxaan nga xam ne ñëpp xam nañ li ko waral ñëpp xam nañ it li fi indi woon ko tedd kii ba suñ borom def mu mujj fii Serigne Touba xamoon wàccuwaayam moom soxna si dinaa ci dellusiwaat tuuti dellusiwaat it ci ki nga xam ne bu nit ñi jariñoo ci barab bi jëmm ma tax muy Cheikh Mouhamadul Bachir door a jotti nag kàddu yi nga xam ne moo jëm ci bokki taalibe kon fi may ubbee samay wax mooy santaat yàlla bu baax sant Serigne Touba ci tawféex juré ji nga xam ne defal na ko njabootam gi ndax sëriñ bi marsa wax ne na xam ne ëpp leen yeesu leen gimi jàpp leen bu ngeen ëppoon da ngeen di ñëw ba dem ma door ñëw bu ngeen yéesoon itam da ngeen damay ñëw da ngeen di ñëw ba dem ma dooru ñëw gimi mi jàpp leen it mooy dajewu leen ak man ba noppi weddi ma yàlla def itam Cheikh Abdoul Ahad dadaa wax ne sëriñ Touba gis bi dafa neex gis bi dafa neex mooy lépp da ko fàggu na mu ko waxe woon Cheikh Mouhamadou Moustapha nettali naa ko ay yoon jëru dellusiwaat ci yoon wi lépp lu ngeen fi gis rek sëriñtuwaa Touba waajal na ko waxtu woo war a agsi rek bu agsee danga xam ne lii nii la ko sëriñ bi bëggee woon mu bokk ci pàggu téefam yu yooyu itam wax ju gudd lay doon waaye dama ci génn benn faqara rek Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko waxoon waxoon na ne Serigne Touba bi muy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi dafa fasaale ci biir liggéey ba li ñuy tuddee xutbaaniye yéegi bu duggee ci ak njabootam dootu génnati ba mu ko ci biir loolu itam nag mu fàgguwaale ci képp ku ko fi nekkal ku ne at def wal jalbu suñu borom doo koy def ci yow loolu nag ñëpp dund nañ ko ci ku fi ma sa nekkal Serigne rek fees nga dell place bi mate nga ko sëkk loolu kon alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu suñ borom taw fay xalee njiit yu mat sëkk yoo xam ne ku leen gisee xam ne ñii seen ite jëpp mooy delloo nit ñi ci yàlla seen ite jëpp mooy ràmm nit ñi seen ite jëpp mooy xetli nit ñi doon def nag ak Cheikh ñëw ndax fa zakir fa inna zikra tanfaul bi sax gàtt na waaye fàttali dafa baax ndax nit Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké dafa waxoon ne wattandiku leen miineel ndax loo miin xeep ko te loo xeeb yàpp ko te loo yëpp doo ci jariñoo kon Cheikh Mahmoud taxa nekk gi mu nekk ci suñ biir ni ko suñu borom melal ci ay jikko ak i tawféex ju yàlla dajale ci moom waris na ko gën a xam bu baax te jariñoo ko ndax moom kat dafa jug rek dëgmal jaamu yàlla dëgmal liggéey Sëriñ Tuubaa kilifaam yëpp tàmbalee ko ci ki ko gën a jege muy Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir mu nekk moom denc xalaatam denc bëgg-bëggam denc léppam topp ci ginnaawam di ko liggéeyal ba loo xam ne waxuma la ñun ñi waaye suñ diggee taalib yi sax ab taalib mënu ci àgg ba làq ngërëmam bu loolu jàllee itam ñim dajal ñim jamonoonteel ci njabootu Sëriñ Tuubaa ku ne xam na ni ñëpp gërëm nañ ko Cheikh Abdoul Ahad mas na waxoon ko mas na ko wax ne ko maa ngi ñaan yàlla ñu yàlla rus ci kon jataay bi gisoon na ko Cheikh Abdoul Khadir Mbacké bis Serigne Saliou ñëw na siyaare ko ba mu agsee Serigne Abdoul Khadir dafa wax ne nañ daal di wooyu Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ñëw fonk ko lool ba jox ko cërub doomu Sëriñ Tuubaa diggam ak Seex Saaliwu Mbàkke dane fàng ndax ku ne xam na ne seen diggante jiit na Seex Saaliwu Mbàkke di doon Sëriñ Tuubaa Sëriñ Saaliwu lépp lu masaan yéene bëgg koo def te amut jotu man koo def Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko ca doyoon ci lépp nag ci genn fànn muy ci biir yoon wi di ci biti doy loo mel na ku doon waajal jataayam bii tey yàlla suñu borom defal ko taw tawféex itam bi nga xamee ne cheikh Mouhamadou Mourtada dem na ba ayi ko fi cheikh Mouhamadou Mourtada doy na sëkk ci moom dam doomu Serigne Touba tudde ko doom muy cheikh Mouhamadou Mourtada kon ñoom ñëpp ko sedd diggam ak Serigne Souhaïbou ñu ñi ne woon ca daara ja xam nañ fekk nañ ba tàyyi cër bi ko Serigne Souhaïbou joxoon kon moom. diggam ak soxna may kenn fàttewu ko fàtte xaju fi laylatul xadri moom la ko sëriñ bi daa taxawloo ngir pëste fa te booba ñi ko mag ci yoon wi ëpp na jege na ñaar fukk wala mu jege ko wala fukk ak juróom kon lépp pëste fa ma ko mayoon kon nag ku am kilifa gu mel noonu bi nga xamee ne doomi sëriñ Tuubaa bàyyi ko nañ fi itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi njëkk a wóotu sëriñ Tuubaa ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawaay ba mu def ci moom. ku ne xam ne cër bi ko yoonu mu jox gëm gi ñu ko gëm fonk gi ñu ko fonk waaye mu jël lépp nëbb ko laxasaayu fi mu toll ci at fi mu toll ci cër fi mu toll ci daraja dem ci kenn wu Cheikh Mouhamadou loolu ñun ñii sax àgguguñ ci mën koo def kon royukaay bu rëy la boo xam ne la lépp def na ko yëkkati juróom ak ñaar ne ko dunduk Serigne moom laa jël tàmbalee ko sama addi sama digg yow nag ànd ak moom àndeen woo xam ne lu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké wax rek amu ci xalaat kon noonu la àndee ki kilifaam diggam ak Cheikh Sidi Moukhtar fekk naa ci wét ba tàyyi Cheikh Sidi Moukhtar seereel ko ne Cheikh Mouhamadou Mountakha de moom laay def sama Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf te teewut lépp mu la xasaayu topp ci ginnaaw amutu bëgg amutu bañ amutu xalaat toog na fii ci Poroxaan ñëpp du dégg motul ñaari at mu nekk Serigne Touba mu taxaw ci télévision ñëpp du ko dégg muy ñaana Cheikh Sidi Moussar dem ba wax ja xóot ba àgg ci wax ne bu nar bu naree dem moom na dem Cheikh Sidi Moussar des fi loolu kenn mënu ko weesu kon Cheikh Mouhamadou taxa lim am mayeesu ko ko sarexeesu ko ko da koo jënd. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee woon na ne lu jënd kenn tëndeetu ko kenn tëndeetu ko ca kenn tëndeetu ko ca kala ko jaayoon sax moo du koo xàcc kon moom li mu am ci yoon wi da ko jënd moo tax nag ñun ñu topp ci ginnaawam war nañu xam bu baax ni ñu àndeek moom am na kilifa gu baax ci sëti Sëriñ Tuubaa yi gën a màgg te tegu ci yoon lool wax na ma ne bi Cheikh Mouhamadou Mountakha nekkee Serigne Touba dafa maa wax ne ma moom de mbiram ni ma koy mën a xalaate mooy wa ma aslama jibrilul amini ata bi isniman huwa fawxal kulli qaharu mualliman anna islaam alfata umarin bushra li ahli kulli yaxtaaru daane ma xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ak daal noonu la ko ci suñu borom defal mooy ñëpp a maase ci nongu ko loolu nag boo delloo ci maqaamatul xarit dafa wax ne kama tëddiinu tuddaaru li nga lef rek moom lay lay fay kon sëriñ bi lam daa wax bu may jëm ci sama kilifa kat dama ko bàyyi sama mu bàyyi ko jëmmam daana ko wax kilifa mi ku ma ci seen rek xamal ne xaat moomoon denc naa ko ci ginnaaw nekk na ma moom ci liggéey bu fukki at mu door doon sëriñ Tuubaa mosuma dégg Mouhamadou Lamine Bara wala Cheikh Sidi Moukhtar yónni ma ci moom dara lu mbir ma rëy rëy rëy mu ne ma bu defoon nangam mu gën a rafet ba man sax mosuma xam ne suñ bi am nay xalaat te moo ëpp ñëpp ay xalaat kon kilifa gone ku mel ci ginnaawam war ngaa góorgóorlu te xam ne kat Sëriñ Tuubaa lu ko nit jege jege jege jege te amoo ci moom pastéef pastéef bu dëgg doo ci jariñoo kon nag ñaanal mu yàgg fi loolu tam ànd ak wér te ñëpp itam maase ci laxasaayu topp ci ginnaawam te xam ne sëriñ bi lépp xam ko yàlla defal na ko mu fattaxatan lahumul boobu la ku agsi mu ubbi la ay buntam tëjuwul kenn ku agsi dana la diglu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag dadaa wax ne naay xam waaye nag namay saafara bu ci seen yoon ne kon sëriñ bi lépp lu mu war a def ku ne xam na ne xaw azima la sëriñ bi du nës nësal ci wax du ñab ñabal ci jëf lu mu war a wax dana ko wax ba ñëpp dégg ko yaakaar naa li weesu yëpp lu ci ne bu ca waree yëkkati kàddoom lam ci war a wax ñëpp dégg nañ ko moo tax lii xew fan yi nag ci ay bis gii mooy mbirum jàngoro ji danaa ci dellusiwaat sax ci li ma ci wax waaye ñu bari woo nañ ma daa mujj sax ki war sama téléphone bi ma ne ko bu moo ko àggante ndax sëriñ bi la mu ca war a xam xam na ko ca waaye digal sëriñ bi rek ne ko defal nangam ab taalibe du ko def ndax nit la sëriñ Mbàkke bu sooxoon rek ñoo ko seetoon ba mu doy ñu suñ diggal suñ borom ñu doy loo ko ci kon lu mu ñu war a wax dañ ko war a gëm sëriñ bi nag la mu war a xam xam na ko. na muy saafara nag nañ toxal màggal yeeg nañ indile xew-xew yi loolu du suñu cër man de du ma ko def te ko yaakaar Sëriñ Tuubaa tam yi dëgg ceeb itam sëriñ bi bu doxoon ba xam ne lu ñu war a def la du ci diglu kenn ndax xam nga sëriñ bi amul lu muy ragal amul lu muy xalaat moom bu waree jël responsabilité da koy jël ñëpp dégg ko kon fommuloo sëriñ bi ak màggal sëriñ bi moo ñu gën a xam suñu bopp moo ñu gën a xam lay xew ëllëg moo ñu ëpp ba ci diggam ak boromam. wàllug àdduna gi itam lim ci xam xawuñ ko kon bu xoolee ba xam ne lii la jamono ji laaj ci diggam ak sëriñtuwaa xam na lam ca war a def loolu du ci diglu kenn kon loolu na ci ñëpp génn te bàyyi di wax sëriñ bi na digle ñu foofu màggali sëriñ bi loolu lu bu dee lu mu war a def loolu moo ko xam du man maa koy digal te ku fi nekkal Serigne kat am na kilifa gu mu waxoon gu mag ci njabootu Serigne Touba baax ne ma lu njëkk xalaat te kenn wax ko ko te ci Serigne jóge kon nag loolu laa amoon ci wet googu lu ma ci wax njar xam ne alxuraan dafa bayu dara wa minhum allasina yuzuuna nabi wa yaquluuna huwa uzunun daanañ ko wax rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonente benn nopp la sëriñ bi moom du benn nopp ñëpp xam ne ni ñëpp lay diglu bu waree jël responsabilité mooy xam na nga koy defee ndax ay millions nit la ñuy def responsabilité bi ci réew yi kenn amu ko kooku ëpp xam-xam ci réew mi yàlla sakku ko ko dàq jaam yàlla amut. koo ko gën a bëgg Sëñ Tuubaa amut koo ko gën a dogg ci yoonu Sëñ Tuubaa amut comme lu mu war a def rek xam na ko kon loolu laa am lu ma ciy def dolliwaat ci rek li alxuraan di wax ne wa minhum man yaqulu man yaqulu izan li izan li wala taftinni digal ma waaye li nga may digal loolu boobaa ak taalibe néewtut foofa ab taalibe day diglu sëriñ bi ndax bu fekkente ne yaay digal sëriñ bi wala nga jàpp ne sëriñ bi say xalaat la war wee loolu njuumte na te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké am na ñu ko ma soo wax da waxoon ne lii di ak ak xali tudde am bu mu képp mu mosul la mën naa ko ni futee teg suuf topp ci seen ginnaaw lu ngeen wax ma def ko lu ngeen di lu ngeen tere ma bàyyi ko bu ngeen ko mënul nag ngeen bàyyi ma jiitu lu ma digle ngeen def ko lu ngeen tere ngeen bàyyi ko Serigne Saliou Mbacké waxoon na ko ñëpp dëgg yaara man am ngeen jiitu ma topp seen ginnaaw wala ma jiitu ngeen topp sama ginnaaw kon nag li mën a nekk mooy moom bi fi nekkal Serigne Touba ñëpp maasa ci di ko diglu te xam ne moom rek la war a diglu loolu laa amoon ci lu may jiital ci wàllug sëriñ bi bu ñaareel ba it may nuyu ministre Aly Ngouille jaay di ko yóbbantam nuyoo ci président loolu jërul ma di ci soriwaat ndax li ci sëriñ bi wax waxloo ko sëriñ Isaaxa ci cant ak ngërëm. ci li nga xam ne def na ko ci dëkk bi ak ci seen diggante loola dara mënu caa dolli ko waat kon isa qaalat mi fa saddiquha fa inna al qawla maa la ca desaatit cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke mi nga xam ne mooy sëriñ Bachir mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénkoon màggal gi teg ko ci loxoom bu subaa ci ëllëg ba màggal gi jeex dana woowaat mboolem rajo yi ak télévision yi jot mboolem service yëpp. kenn ku ci ne li nga xam ne def nga ko ci màggal gi ba màggal gi mel ni ak li nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi te sëriñ Isaaxa junj ko muy loo xam ne ñëpp tëg nañ seen bët kon sëriñ bi nee na mi ngi koy xamal ne ko la ma ko waxoon rek mu ngi koy sant di ko gërëm waxaat na ma léegi ne ma nee la ma ko waxoon ne ko dama ko tàbbal ci liggéey bi may liggéey sëriñ Tuubaa na xam ne tey la ko gën a wax kon mi ngi koy ñaanal bu baax a baax la ca des nag mooy fàttali tuuti ci ki nga xam ne. mooy borom bis bi soxna jaaratullahi Mariam Bousso bala ma ci agsi sax danaa wax tuuti ci wàllu li xew ndax sëriñ bi dafa am lum ma ci junj te sëriñ bi Isaax wax na ko wax na ju xóot joo xam ne doon na sëkk yaakaar ci ne na ci nit ñi seenum xel dal ngir xam ne moom la ko ca war bi muy santaane danañ jàng kaamil yi ci dëkk bi ci réew mi sant ko jullit yëpp boo jàngoor gi duggagu ci réew mi kon am na basiiru te gisoon na ko waaye fam ci ne ci diggam ak Serigne Touba fam cene ci wakkiilu diggam ak yàlla loola doy na sëkk suuf ci nit ñi seenum xel war a dal waaye ñu xam ne dafa am lu mu wax mooy lislaam lu ci ne am na lu mu ci santaane balaa mooy li ñu tuddee am mbas nañ xam ne fu mu amee rek ni ko alxuraan waxe sahara zahal fasaadu fil barri wal bahri bima kasaba indi naas luy chequhum ba'da lasi amilu la'allahum yarji'un foo ko gis rek na nit ñëpp maase dellu ci seen borom te kenn ku ne jàpp ne li tax suñ borom wàcce balaa bi yaa ko def tuub jéggulu dellu sa borom jàpp ne yaa tax suñ borom wàcce balaa bi ndax wa maa yaalamu junuuda yàlla suñu borom li muy àll gi ay nit dafa bari ndax balaa dafa am am loo xam ne day nuru balaa te doonu ko ndax fartaqib yawma taati samaawu bi duxaanin mubiin yaxsa naasa haasa asaabun adim rabbana kshif anna al azaaba inna mu'minun anna lahum zikra wa qad jaahum rasulun mubiin loola nekkul balaa ay malaayika yu wàcc la waaye fu ngeen gisee nag mbas di balaa na ngeen xam ne suñ borom moom bëgg bëgg a mbugal ay nit ci biir mbugal ñi muy mbugal nag képp koo xam ne yàlla suñ borom def na nga nekk ab jullit bu balaa bu wàccee ci bu fekkee faatu nga ca dara darajee shahid nga mooy ko dee ca xare moo tax dinaa ci nett lu gàtt Seydina Umar ibnul Xattaab jugoon na di seeti Saam seet ku ñuy wax Ubayda boobu fekk na lu mel ni am balaa am sidna Omar di bëgg a dem ba càgg mu diisoog saxaaba yi ba xam nu mu war a def ku ci ne joxe sa xalaat am ci ko wax ab addis wax ne rasulullahi sallallahu alayhi wax na ne mbas fu mu am ku mu fekk ci dëkk bu fa jóge bu kenn jóge ci dëkk dem fa bu fa bu fa kenn bu mu fa dale kenn ngi di fa jóge kon loolu lislaam ko santaane bi mu waxee loolu Abu Ubayda wax ko ne ko Seydina Omar ne ko day dëpp du dem mu ne ko ndax da daw daw dogalub yàlla mu ne ko waaw damay daw dogalub yàlla ngir dogalub yàlla kon nañ xam ne wattandiku gi ci daw ci faggandiku dogalub yàlla la bokk kon loolu lislaam a ko santaane kon lu mel nii bu xewee ne ñëpp maase ci xam ne ku ci ne la la ca war ci wattandiku ak li nga xam ne mestin yi suñ boromee la wàcc ci kaw suuf diggante yonent yàlla Moussa ak ka ko doon faj ñëpp xam nañ ko jëru del siwaat médecins yi suñ borom leen wàcce ci kaw suuf ngir ñu ngir ngir ñuy lijjanti nit ñi ndax qul law kaana fil ardi malaa'ikatun yamshuuna mutma'inniina la nazzalnaa alayhim mina samaa'i malakan rasuulan bu fi ay malaayka nekkoon kon yonent yi sax suñ borom dee wàcce ay malaayka ñu ñëw di wax ak ñoom waaye ndegam ay nit a fi ne rek médecins yi ay nit la ñu kon la ñuy santaane ko na ci ñëpp tënku ngir xam ne loolu mooy li war a am. ñu xam ne itam nag ñu xam ne itam nag jamonoy Serigne Touba Serigne Touba saafaraal na ko ñu bari dégg naa ci so Serigne Souhaïbou am na benn commandant de cercle ñëw na fa boo peste bi mbett ba kenn mënut a génn tubaab bi ñëw fa ànd ak jabaram ànd ak ab këlboom ab daw ab dawkat bi mu dikkee ne Serigne bi kat peste bi mbett kenn mënut a génn waaye bu ma sonal 1918 la bu delloo ci histoire 18 wala 19 bu ngeen xoolee ci archive da ngeen ko fekk gàmm googu sax dañoo mujjoon dañ ko dindi dañ ko tere woon ba gàmm gi defatuñ ko woon ba peste bi jeex ñu door ko tàmbaliwaat loolu kon lu yàgg la sëriñ bi wax ne dañ ko indil kafe mu dikk sëriñ bi ñaan ci kafe gi jox ko ne ko naan ci jox ci soxna si jox ci dawkat bi ñoom ñetti ñëpp ñu naan ci tubaab bi nee na fa ba peste bi jeex ba ba muy dellu France ñëwaat ci sëñ bi sant ne ko kenn faatuwu ci ñoom te peste bi àggoon na foo xam ne moo gënoon a tar lii bu ngeen déggee sëriñ bay jaxat di ko wax naan ko waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jeex dem da ci ba ci biir wax ji mu naan ko boo ab sàmm ne cell jur gépp jeex bu jur gépp bu jeexee lu muy sàmm kon ba ñee dëddu kër bàyyi ko ndey di di ñëw wutug mucc a tax mbaa kon li ñu wut wut si kon ba suñ borom dogalee mu war a jeex Serigne Touba ñaan ci mbas ma daal daal tàggook ñëpp kon ni ñëpp dal xel ci ñaanu Cheikh Modou Mountakha te tënku nag ci li nga xam ne ñi fi yàlla suñu borom wàccee ci kaw suuf muy médecin ñu ngi koy wax lépp loo xam ne xam nañ ne lu mu laaj la ñu war koo def te diglu digal ko nit ñi na nit ñi nit ñi nañ fexe ba tënku ci Serigne baa ngi koy sant ñëpp kon loolu mooy fa ci Serigne bi nekk di jeexale nag ci. ki nga xam ne moo waral bis bi muy soxna jaaratullahi Mariam Bousso ku tedd koo ki nga xam ne kenn mës a dégg ci histoire ci taarix ku suñ borom defal lu mel nii mu ko defal naa ci nett rek ñaare xissa benn bi ci sëriñ son yi laa ko déggee dafa wax ne sëriñ jéere waa daan sugu bi mu fi bàyyi bañ di ko taxawu ba sëriñ Tuubaa ne sëriñ Mbàkke Buso mu taxaw ko ba mu dellusee danga ko wax ne ko Mbàkke ndax séen nga sa bàjjan ca sàppe sa sëriñ Mbàkke Buso ne ko Mbàkke da xanaa loolu yaa ko mën a gis mu ne ko ma nga ma nga woon ci biir sàppe sa ndax sëñ jéer da def bu amee doom bu dee góor mu tudd ko sëriñ Tuubaa bu dee jigéen mu tudde ko soxna jaara te booba xamugul sëñ bi ci saaxir loolu soxna jaara faye na ko loolu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké it nettali na ci màggal Touba ñëppi dégg ci cérémonie officielle mu wax ne bañ tàbbalee Serigne tubaa ci yeer ma ca Gabon nee na soxna jaara moo agsi ne sëq ci ñaari waggam yëkkati ko ne ko bu kenn mën yàq sa liggéey kon loolu doo dee ci Cheikh Mouhamadou Bachir nag njabootu sëriñ Touba gépp ku ci amee njukkal at moom njëkkee woote màggal ga bii rek la ko sëriñ Bachir di wax Cheikh Abdou Khadre nettil na ko ne ko ba mu fekkee sëriñ Bachiru ca njaareem boo dëkk bi xam ngeen ni mu demee tumuraankeenam metti woon na lool dara néew fi woon Serigne Touba cëre la ko ko mu di cëre bi nag mu ne ko yaar de jaaxal na ma poroxaan niis fay nekk ak niis fay ñàkke nekke nii fay nekke ndax na barab ba bindoog la nga xam ne mëni su ko wax ci mbooloo waaye nii fay ñàkk dekkit ngir ku tedd ka fa ne kon Cheikh Mouhamadou Bachir Serigne Touba cërale ko ko mu liggéey ci Serigne liggéey boo xam ne liggéey bu ñëpp xam la moo andi fii dëkk bi tey ba ak njabootu wóotu ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla fi yàgg te ànd ak wér yàlla defal ko tawfeex it mu taqoog Serigne Touba mel na moom la Serigne Touba taqooloon ci ak jabotam mu taqoog Serigne Touba mu waroon fee jóge dem jànge gànnaar Serigne Touba ne ko toogal fii la ngay wuti gànnaar daan la fekk yàlla def itam mboolem lu mu soxla woon ci xam-xam naari di ñëw ci kër Serigne di ko jàngal kon lépp fekk si ko fi ne mu bind ci Serigne Touba loo xam ne ba àdduna tukki ku bëgg a jariñ ci Serigne Touba nga dellu ci ay bidam liggéeyee Serigne Touba ginnaaw ci ak njabootam ku ne xam na ne diggamu Cheikh Maodo Moustapha diggamu Cheikh du Fadel kenn ku ci ne ànd naag yow liggéeyal la liggéey boo xam ne ci sàmm yoon wi ci ak taalibe nose yoon wi fexe ba ñëpp àndandoo nekk benn képp koo xam ne gis na ne doxe doxewoo noo war a doxe mu dem jëli la waxtaan ak yow delloosi la kon war tudd xelil musliha fii yadi wa fii daari wa sabbitanhu bil haadiloo fi suñu borom defal na ko ko ma jeexale ko nag sëriñ son bi Mbàkke dafa wax ne damaa fekk sëriñ Basiiru ca tiib ne ko Mbàkke damaa bëgg nga dénk ma tuuti ci mbirum sëriñ Tuubaa ndax yow yàlla def na nga takkook sëriñ bi xam coom lu bari loo xam ne xamuñ ko sëñ Basiiru ne ko waaw mbirum sëriñ bi dafa yaatoo ndax day géej waaye dana danaa ci tànn lenn rek lu ma lay nett li ngir nga jariñoo ko mas dox ci biir keesi njaareem bi ndax moom ci biir kër sëñ bi la daa bay dugg ci nekk fekk muy wax ak Cheikh Mahoudou Moustapha ak Cheikh Mahoudou Fadil jël ñaari loxoom yu tedd ya ci loxol Cheikh Mahoudou Moustapha ak Cheikh Mahoudou Fadil nee may dugg si fekk muy jeexal mu naa leen jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla bu ngeen jéemu jiwut yàlla de lii ngeen fee gis muy nuuru dara def ko ci ndunku runku pël muy dem moom sax safuma kon Serigne Touba foofu la nekkoon kon bu ngeen see ma ubbee inna diina indallaahi lislaam mooy nit balaa doonub taalibe day doonub jullit ba noppi Cheikh Modou Moutakha waxtu mu wax ko jullit nag ak lislaam nekkul rek ci lu jub ci sama xel inna diina mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli mabniyun naq naqli ni ko lislaam wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi loolu mooy lislaam waaye seet la jub ci sam xel nga jàppoon lii mooy lislaam ku ko def itam na nga xam ne boobaa la Serigne Touba waxoon sëriñ ma Massamba ne ko ma Massamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko seetaan de ñëw ne ci man ne ma ne fu ne jaar naa la fa de mënaluma la dara waaye des na tuuti jamono ngi ñëw danaa jël lennat ci sama mbooloo ak lennat ci sa sa mbooloo jaxase leen ba kenn leen maa tàggal loolu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla dimbale defal ñu feex defal ñu def dëgg dëgg ñu doon ay jullit def ñu ñu dëgg dëgg taalibe Serigne Touba yow Serigne Touba nangu suñu taalibe yàlla nañu yàlla dimbale xiiruñu ci li Serigne Touba bëgg xiiruñu ci li nga xam ne Serigne Touba bëgg na mu ñu mel ko ñu mel ko te bañ ko wàcc wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Mamadou Bachir